en arrière le président sortant comme ni ko maam Biram di waxee Ayoba dafa mel ni le front social est en ébullition fi mu nekk secteur yëpp jug nañu instant bi pour dire au président Macky Sall qu'on en a assez on veut aller à des élections libres et transparentes euh, ñu ngi toll ci 13 135 ñoo xam te ñu ngi ñuy suivre présentement pour donner de l'importance à Keppar gi Ayoba oui c'est vrai euh, euh, front social bi c'est en ébullition gis nga syndicat enseignants yi ñu ni dañuy Euh, woote grève générale euh, tout ça c'est c'est c'est bien beau euh, mais foog mu am coordination pour man entre toutes les organisations yi nga xamante ni organisation citoyenne syndicale wala politique képp képp foog ñoom ñëpp ñu ànd nekk benn dànk ku ci nekk ci secteur ba nga nekk ñu déggoo ci ay plan d'action yoo xamante ne buñ ko tëralee peut-être buñ ko dóorandoowee rek dina am dina am dina am effet may may may may informer ni waa CEDEAO defaat nañ communiqué Euh, sànq muy muy muy tombé tey suba dañ nekkoon en session extraordinaire la commission de la de la de la CEDEAO pour parler euh, des retraits du Mali du Burkina et du Niger ils n'ont pas cas Sénégal mooy wane ni tamit euh, dese nañ am ba léegi ñoom courage yu dénoncer vraiment li nga xamante ni moo moo xew ci nga xamante ni moom la Macky Sall def def muy violer suñu constitution reporter euh, suñuy élection donc euh, xeex bi ñuy xeex euh, violation boobu nga xam ne moom la ñu violer suñu constitution fii lay commencer balaa muy dem bitim réew ba balaa waa bitim réew diñ ci jàppale loolu rek lay loolu rek lay wone bu ñu mhm. bëggee ñu jàppale ñu ci xeex boobu fokk ci ci réew mi euh, ñëpp booloo dank nekk benn pour défendre suñu constitution défendre suñu constitution mooy ñu xamal Macky Sall ni lii mu def nii euh, mënul wëy te muñ ci d'accord te le 2 avril mënuñu permettre muy continuer di wëy di nekk président Sénégal parce que mandat am jeex na. Mame Birame tey est-ce que front social en ébullition enseignants yi les médecins également ñëpp entrer dans la danse comme ni ñu ko defee woon entre 2011 et 2012 mën na amener le président à ah mais de toutes les façons il il xam nga fi ñu toll nii moom sénégalais yi ñun amatuñu le choix maanaam Macky moo ñuy imposer xeex par force les sénégalais amatuñu le choix parce que bu ñu demee ba nga xamante ne nii Macky Sall waat na euh, ci kanamu peuple sénégalais mu ne dina respecter la constitution. dina fexe bokk institution yi ñu jox leen gëdd. ñu dem ba loolu moom mu wàcc ko nekk ci leneen pour man. devoir la pour les sénégalais ñu retrouver seen souveraineté. Mhm. léegi nag nan lañ ci àggee c'est vrai que ci biir opposition bi ak feneen ak feneen bëri nañu bëri ñoo xamante ne dañuy xamb alors que ñoom ak Macky Sall ñooy reerandoo tout le temps. moo tax précipitation. def lii def laa jaru ko pour man benn coordination moo war a am de sorte que sénégalais yi génnandoo benn yoon waxuma nag ñu yàq waxuma lu ñu teg mais les sénégalais ñoom ñoo am souveraineté bi ñoom ñooy génn wone ko wax ne ñii nii ab groupuscule bu ndaw la matuñu sax cent personnes. mënu ñoo tënk suñu avenir. ba pare euh, tënk sunu présent ba pare hypothéquer suñu avenir. Mhm. loolu moo mënul nekk. mais mais mais tey dafa am ay mesures dissuasives yoo xamante ne maa ngi koy wax sànq da ngay gis. léegi ci dëkk bi foo romb am na ay contingent yu taxaw. contingent wu lan. takk der. <laughs> mais Awa Ndiaye yi boo leen doon jël pourcentage lu ñu représenté ci Sénégal matuñu sax un pour cent des sénégalais. Hmm. takk der yi boo leen jëlee ñoom ñëpp matuñu un pour cent population Sénégal Sénégal bu euh, mais ñooñu ils sont au, au service des sénégalais. ñooñu ils sont au service des Sénégalais. mais ce qu'on a vécu en mars 2021. non coow li kay mooy 2022. non coow li kay mooy. ndax uh-huh. sénégalais bëgg nañu yeeweeku wala bëgguñu yeeweeku. waaw. gis nga Tunisie Ben Ali bañ ko fay tëbal 30 pour cent de la population ay takk der la ñu woon boo nekkul policier militaire nga wala gendarme. wala renseignement. waaw ci kili googu. 30 pour cent de la population. mais kañ la fa jóge bëccëg ndar kàmb la daw ba mu dawee ba léegi ñëwaatul dëkk. Uh-huh. Moubarak mun ngaa wax la même chose ci Égypte mhm. lan moo ko fa jëlee même ba ci Algérie bii nga xamante ni depuis ba ñu amee indépendance ba léegi daanaka militaires yi ñoo téye réew mi malgré président yi jaar nii ko jaaraat mais lan moo fa xew kan moo lan lan lan moo fa jëlee seen président bi te buñ remplacé mhm. mais askan Awa Diom Ndiaye amul lenn loo mën a teg ci kanamam ba askan woowu munul jël saa souveraineté xanaa nag mu bañ koo bëgg wala mu bañ a comprendre les enjeux wala am ay yenn politiciens di génn par ñett ñett ñu dóor leen dina toogaat pour décourager tout simplement la grande masse mais pour man sénégalais ñoom ñoo war a jël conscience que lii xew nii seen présent la ñu hypothéqué la la la hypothéqué ba pare seen avenir ñu nar ko jaay mm-hmm. il faut que ñu jël conscience à mais barki Demba Ndiaye lan lañ fi wax ASP yi ba le 15 mënuñoo fayeeku seen salaire. waaw te salaire ñoom il préfère jënd ay grenade lacrymogène yu jeex pendant que population yi fii du ñu fayeeku. Mm. jënd ay kaaru gendarmerie yu dul jeex pendant ce temps mais askan wi ñoom bu mais de et je suis persuadé que ne askan wi mënul continuer di nangu loolu. il faut que ñu dem ba nga xamante ni te lii nii. pour man li tax mu gën a tee garaaw mooy que yu bëri awa dafi xew sénégalais yi jàpp ne jarul yëngatu. Mhm. puisque dinañu am possibilité. Mhm. faj ko te sagar bu. si élection élection lañu yaakaaroon waaw. dañu ne leen déedéet élection amul. ba ñu toogee fii ne ci temps Covid yi. pendant policiers yi di dóoree ñi nga xamante ni dañoo tardé yegg seen kër te euh, après 19 heures temps Covid. Mhm. yéen ñëpp tëddi leen yéen ñëpp tëddi leen yéen ñëpp tëddi leen. ñu ne pendant temps ñoom ñu ngi noos ci mille milliards yi nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko dajale jox leen ko. waaw mais loolu sénégalais yi bàyyee mu jàll. c'est parce que dañu ne ñii moom élection yi soreetul dinañu voter mais jëlee leen fi ba lii dootu fi amati. Mhm. léegi nag bu ñu demee ba élection boobu ñu yaakaaroon ne te je comprends très bien ñi nga xamante ni ñoo nekk rëbës dem ba nga xamante ni ñu ngi yëngatu parce que situation yi ñu nekk mais. mais mais élection lañ doon mais situation yooyu ñu ne nañu ko muñ puisque le vingt cinq dina passé président bu bees ñëw dinañ génne dinañ génne situation bi léegi ñu ne leen non seulement nu la tuddati le vingt cinq bii nii élection du am mais sax xamatuñu kañ lay am dommage looloo indi seen yëngatu bi foofu dommage euh, Georges Nesta par rapport ak euh, le front social tey ji en évolution mu mel ni on va vivre ce qu'on avait vécu en et waaw euh, xam nga front sociale loolu mooy prise de conscience pour montre que combat bi Sénégal di mën a nii c'est pas combat boo xam ne dañ ko war a bàyyi candidat yi war nañu bàyyi kook parti politique yi. waaw ñëpp si war a dugal <coughs> seen loxo. pour mm-hmm. montre que. lii c' est l' du Sénégal qui est en jeu. Mhm. donc enseignants yi bu ñu jógee aussi ils sont conscients que ñoom dañu war a jàpp ci combat bi. mais pas dire que seulement rek candi man du mu woon candidat wala du mu bokk ma ci parti politique wala. xam nga euh, dafa am en grand penseur bu wax ne boo nekkee ab citoyen nga ne su ma yoon nekkul si politique. da nga war a jàpp ne boo ko waxee rek da si war a teg ne man tamit donc su ma yoon nekkul suma suma su ma dund sax man su bopp mm-hmm. parce que politique boo nee rek su yoon nekkul si politique mais politique mooy rek mooy tax ngay mën a yeewu dem liggéey politique moo mën a tax nga yeewu nekk si jàmm politique moo mën a tax nga yeewu man nekk dans de bonnes conditions di dund dans bon bonnes conditions que boo nekkul politique ñuy politique ñooy dem di dem voter ñooñu ñuy politique ñooy dem di gagné élection yi ñooñu ñooy dem di la fixé yow sa courant ñaata lay jar ñooy sa ndox ñaata lay jar sa école nii ak nii ah sa dund nii lay demee ak donc boo ko waxee rek boo nee man daal lii seen coow lii bokkuma sii man duma politique jël nga décision boo xam ne c'est une décision extrêmement dangereuse parce que la politique elle avant au centre de tout ce que le citoyen fait. d'accord parce que politique mooy tax ñu voter la bu baax politique moo tax ñu mën la fixer ay prix ay logement ay lépp. donc lépp loo citoyen di def du matin au soir si politique lay jógee. d'accord merci beaucoup euh, Mame Birame Wathie ñu nekkoon euh, quatorze mille cent vingt et une personnes doon ñu suivre en direct ñu leen di jaajëfal bu baax naan leen seen kóolute mooy suñu mbégte Mame Birame merci beaucoup Georges Nesta Diop Ayoba di leen wax ne conseil des médias demain le 10